Latifi daañu ko waxtaanee euh, yokk gi ngay xamante ni euh, criminalité bi ak insécurité bi mi ngi koy yokk sa su ne euh, Sénégal daañu laal chômage jeunes yi lan moo ci solution exactement réduction au de vie état bi maanaam wàññi ni nga xamante ni autorité étatique yi noonu la ñuy daal di dundee su ko defee askan wi daal di gën a mën a gis seen bopp maltraitance bi nga xamante ni gis nañ ni ñu ngi koy jëmale ci ndaw yi file ci Sénégal daañu ko waxtaanee kile nag di njiitu réew Sénégal moom sax dem na bay wax ni euh, ñi koy critiquer ci réseau sociaux yi ay chômeur lañu loolu daañu ko waxtaanee euh, tamit ak crise bi nekk ci université bi ak tamit crise bi nekk euh, ci hôpitaux yi ak yeneen ponk yoo xamante ni soxal na actualité bi daañu ko waxtaanee tey jii ak suñu invité di Brice Cédric Coly nekk sociologue nekk tamit manager de projet de développement ñu lay nuyu di la dalal jàmm Brice Cédric Cédric plutôt Coly Euh, salaamaaleykum euh, madame Moreau maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu itam <coughs> euh, kilifa kër gi yëpp. Mm-hmm. di nuyu say nawle yi nga xamante ni ñoom ngay. Mm-hmm. ñoom nga bokkal liggéey bi. Mm-hmm. di nuyu askanu Sénégal. di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, les principaux auditeurs. Mm-hmm. Hein, et auditrices et les mm-hmm. principales auditrices de Rewmi FM. voilà ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité bu baax a baax question bi ñuy njëkkee euh, moom mooy euh, gis nga ni actuellement avec <coughs> les nouvelles technologies de l'information et de la communication pratiquement sénégalais yi fi ñuy joxee seen xalaat fa ñuy exprimer woo moom mooy ci ci réseaux sociaux yi lu si demee ni ki surtout. Facebook nga xam ñu pratiquement ñëpp fa daal di euh, tase nga gis fan yi euh, njiitu réewu Sénégal def na benn sorti euh, ci benn cérémonie bu mu doon lancé ci sortie bi nag moom ma ngay wax ne ñi koy critiquer ci réseau sociaux yi ñooñu amuñ liggéey ay chômeur lañu amuñ lu ñu def moo tax suba ba ngoon ñu koy daal di critiquer gis nañ ni sax à un moment dem nañ banaan naan le président Sall moom mooy président bi ñu gën a clash wala bi ñuy gën a attaqué ci réseau sociaux yi yi naka nga ah, attaque boobu wala sax contre attaque boobu nga xam ne président Sall def na ko ci ñi koy critiquer ah, ci réseaux sociaux yi jàpp ne ñooñu amuñ palte amuñ place noonu sax la ko waxee amuñ palte amuñ place amuñ lu ñu def moo tax ñuy critiquer ay bilan ak liggéey waaw ci ci wax boobu man euh, lu ma ci lu ma ci mën a wax dafay dafay dafay succinct mhm. da parce que euh, bokk naa man d'abord ci ñi nga xamante ni mhm. bind naa si réseaux sociaux ah, le Facebook mhm. Euh, lu président wax noonu. Mhm. de réagir nga si. par rapport ak déclaration boobu. voilà parce que euh, moom déjà dafa jël le mot chômeur su le plan le plus négatif. Mhm. da ko jëlee ci li nga xamante ni mooy maanaam. ku mhm. ñàkk liggéey maanaam ku ñàkk am looy def. or du loolu mooy mooy chômeur chômeur généralement boo xoolee ci définition étymologique am. mooy maanaam ki nga xamante ni am nga ay capacité mhm. am nga mën-mën mhm. bi nga xamante ni au moins nar nga mun a fair valoir mhm. quelque part te à chaque fois yaa ngi ut ah ci fi nga xamante ni soit ci liggéey bi nga ñàkkoon nooy delluwaatee ci liggéey wala sinon am nga liggéey eh, yaa ngi utum liggéey en permanence loolu noonu moom mooy définition mais moom fu nga ko jëlee dafa dafa dafa graw dafa graaw Mm-hmm. léegi man ma ne ko. Mm-hmm. si sama sama page ma ne eh, eh, njiitu réew mi ma ne ko man pour man. Mm-hmm. nagoo toog dinaa dañ lay critiquer. léegi comme yow da nga ko jàppee et critique. man lu ma ci gën a mën a gis mooy maanaam léegi nañ la poser ay questions. moo yan question euh, question yooyu noonu pratiquement dama ko ne ci wàllum emploi des jeunes da nga nar a xool. te ñu lay critiquer parce que nga ne amuñu liggéey moo tax ñu koy def mais yow mii ba ngay ñëw da ngaa digaale woon ak ñun. Mhm. li nga xamante ni mooy maanaam boo ñëwee di nga créer. benn emploi ay emploi mhm. ci emploi yooyu noonu ngay créer yow. Mhm. di nga permettre li nga xamante ni moom mooy booster. économie Sénégal. foo malheureusement. foo malheureusement chaque six heures du matin dama koy poser benn question. ma daal di ñëw jox ko explication. ni ko chaque six heures du matin mhm. boo demee aéroport Léopold Sédar euh, euh, aéroport Diamniadio mhm. di nga fekk foofu mhm. volu six heures trente bi nga xamante ni moom mooy dem par exemple dëkk bi nga xamante ni mooy Maroc ñu am si suñu ay ndaw réew ami seen i lijaase am seen kattan pour jox plus-value dëkk bi nga fekk fa ñi nga xamante ni am nañu compétence si wàllum togg peut-être ak travaux ménagers ñuy jël vol yooyu noonu dem Maroc. Mhm. est dem Maroc lan dem doxi seen soxla wala uti liggéey pour liggéey parce que gisuñ seen bopp fii ci réew mi voilà mhm. yaa ngi gis mhm. nga xëyaat nga ne ko est-ce que tey jii nii boo créé woon emploi yooyu yow nga diggaale woon ak ñun dañu waxante dëgg dinañ fi gis ay multinationales yi nga xamante ni xale yi am lijaase yëpp ñoo ngi ciy diggu ñu leen ciy teg dil ñu leen ciy teg dil ñu xëy ñoom si seen bopp dina ñu jaay wër ba sonn mooy jaaykatu promotion yi. Mhm. wër ba sonn te luñ li ñuy jaay ci benn produit du ñu am sa dividende bi. Mhm. mooy maanaam am na problème. Mhm. y a problème. est-ce que moom itam lu mu digaale woon ak ñun tey bu ko respecté woon wax dëgg fa yàlla. ñun dinañu xëy. di toog ci réseau sociaux yi comme num ñu ko tax num ñu stigmatiser. ne ay chômeurs lañu. ay chômeurs nañu. et puis ko globaliser quoi. voilà amul xaaj ak seen. est-ce que dinañu toog. Mhm. ñun ñoo ngi ciy sant yàlla. parce que sant yàlla boobu noonu moom laay wàccee si sama sama conclusion ci texte bu ma bind ma ne ko man ñun ñoo ngi ciy sant yàlla parce que quand ñun dem nañu li nga xamante ni mooy suñu warugar. Mhm. suñuy waajur suñu suñuy ja indi jàmm encouragé nañu galvaniser nañu pour ñu am ay lijaase. Mhm. am compétence par exemple man université Gaston Berger laa génnee comme sociologue. fa nañ ma tàggat ñu jox ma li nga xamante ni mooy capacité bi nga xamante ni pour ma faire valoir ko au niveau de mon état de mhm. mon pays mhm. ma jee ma xëyaat ma liggéey tuuti ma daal di dem jàngiwaat donc yaa ngi gis paramètres yooyu noonu ñun tàggoon nañu ak suñu li nga xamante ni moom nañu mën a jox suñu société mhm. def ngeen seen wareef état bi moo deful wareefam foo malheureusement. voilà moom moo deful wareef wareefam. président Macky Sall ñi muy taxé de chômage. ñoom gouvernement. moom am na ci responsabilité. bu mag euh, euh, je pense au début du texte dama ko doon wax. ma ne mhm. ko c'est lui j'ai une crainte. d'entendre d'entendre di dégg ki nga xamante ni moom mooy la garant de ma sécurité ki nga xamante ni moom mooy moom mooy nommé aux emplois civils et militaires mu xëy di ma wax loolu noonu. man def naa sama wareef bu ma nag def est-ce que moom itam def na wareefam parce que waxuñu la dañuy xaar ci gouvernement mais li nga xamante ni moom mooy cadre d'investissement. Mm Sénégal am na problème. Mm -hmm. peut-être dinañ ci dugg après. Mhm. donc yooyu noonu bu ko tegee yoon ci yoon. Mhm. tey jii nii du am peut-être ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy critiquer au contraire lui il doit glorifier dafa nag a gërëm ñi nga xamante ni ñoo koy ne monsieur il faut relever la pente. Mhm. parce que ñoo ngi sombre il faut que nga relever critique yooyu moom daka naka di ko jël ak interrogation mu jël ko pour réajuster sa politique de développement. mais yow xanaa Bruce da nga bokk si attaque attaqué euh, le président Sall ci ci ci ci réseaux sociaux yi comme par exemple ci Facebook parce que man li may gis si si Facebook c'est extraordinaire Euh, liberté bi am foofu c'est extraordinaire parce que euh, ci Facebook bi laay gisee euh, sénégalais yi ñëw attaqué président Sall ci biir page am day def publication ñu attaqué ko carrément pas sous le couvert de l'anonymat mais comme ça ak sa compte Facebook et tout di critiquer carrément le le bilan du du président wala di dal si kawam wala xanaa yow da nga bokk ci ñooñu parce que président apparemment ñooñu lay waxal xam naa ñooñu commentaire yi ñu koy defal ci page Facebook am moo ko neexul. Ndeykumba man voilà. man bëgguma parce que maintenant Facebook c'est incontournable <laughs> voilà. man bëgguma sax le mot critique mm -hmm. ñun euh, nit critiqué wul. Mm au fait. mais joxe sa point de vue sa gis-gis. Ah, gis nga gis-gis. waaw ah, bu njëkk ba. Mhm. naka nañu gisee woon le champ de communication. Mhm. au niveau sociétal. Mhm. bu njëkk ba par exemple maa ngi fàttaleeku et eh, giiri jamono ñoo ngi doon am peut-être ba léegi sax ay émission wax sa xalaat. yu nga xamante ni plateau rajo yi dañ ko doon def mhm. mais dañu gis la facture mhm. bi nga xamante ni moom la seen cerveau yi seen serveur yi mhm. di génne day day day gars yi pratiquement ils préfèrent ñu utaat beneen champ de communication. Mhm. loolu mooy. maanaam xaalis bu bari bi nit yi doon dépenser ci rajo yi wala télé yi pour wax seen xalaat léegi dafa changé. dafa changé dem ci réseaux sociaux dafa am benn mouvement. da ngay rek nga joxe sa xalaat. pa pas nga man je suis nga joxe ko de façon nu mu la neexee. Mhm. soit da nga koy organiser nga teg ko ci lu leer. soit nga bañ kaa organiser nga mën nga nga jàpp si sa nga jàpp sa bopp. Mhm. mais boo ko organiser mun nga quand même euh, am li nga xamante ni moom la ñuy xaaj ci yow. Mhm. man gisewu ma saa su nekk ni dañuy critiquer le président déedéet nee naa la sànq. Mhm. man je préfère mu ne par exemple am na tel reproche bu ñu ma def dans tel domaine lan laa ko mënee jël ma xool li nga xamante ni moom lay saytu. avec des niveaux d'information par rapport à l'exécution ou mhm, pas mhm. pour ma mën a réajuster sama politique bu ma prévoir woon dans ce secteur loolu mooy yoon. mais je reformule ma question Bruce. Mm est-ce que yow bokk nga ci ñi dem ci page Facebook bu président Macky Sall. di ko def ay suggestions ainsi de suite. mais lu tax mu wax lool rek nga euh, vous vous sentez visé par déclaration bu bu président Sall ba tax nga réagir automatiquement. je moom laa wax sànq au di euh, début. Mm-hmm. dama ne. Mm-hmm. waxuma la dafa euh, dafa jëlul dafa jëlul le bon terme. Mm-hmm. du mot chômeur. dafa jël l' aspect négatif. de stigmatisation. mooy maanaam ku ñàkk. Mhm. am mooy maanaam ku amul lu muy def. maanaam defa defar beneen problème de communication. voilà il a mal de communication moom la nar a xoolaat. Mhm. parce que bu jëloon le mot étymologique mu ne par exemple am na ñi nga xamante ni am nañu compétence ci réew mi. Mhm. nee nañ ma li nga xamante ni moom laa nekk di def nii loolu da cee am ay gàllankoor. ñu ne ma bu ñu defoon nii ak nii ak nii pour moom dina doon yoon mhm. man lu ma ko jox ci interrogation après ma jox ko ay firnde mhm. ni ko mooy kaawu par exemple suñuy diplômé yi nga xamante ni ñoo ngi dem au niveau du du Maroc ñi nga xamante ne am nañu compétence en cuisine nekk si centre d'appel yi si centre d'appel en plus nañu liggéey mhm. yaa ngi gis ngay gis ay master vraiment docteur dem foofu nga nga ñëwaat Sénégal tey jii nii pratiquement ñaari société pratiquement mun naa ne ñoom ñooy employer les jeunes. Mhm. bu dee dañuy waxtaan de façon très techniques et claire. Mhm. mooy maanaam soit sant d'appel Dakar. Mhm. ñoom ñoo nekk di jël ay ndaw. comprendre mais tamit di leen exploiter. ah même euh, euh, peut-être ci euh, man je préfère par mesure de prudence. parce que damay dégg seen i récrimination mais amaguma ci dugguma vers ñoom. wala dewma vers ñoom pour laaj leen. effectivement wala sinon nga jël société yi nga xamante ni moom mooy. société multinationale yi jaaykatu produit mm-hmm. du ma tudd ci tout mm-hmm. mais ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir activité boobu xam nañu fu may waxee mm-hmm. donc ñooñu dañuy ñëw ñu jaay leen ay kii nuñ ci axtee ay yenn motivation yi nga xamante ni illusion kese la donc yooyu noonu tas yaakaar yooyu man laa daal di jël ci interrogation après ma jox ko samay explication kon par exemple yooyu mun na ko jëlaat mm-hmm. mu dem saytul ko boppam parce que am na ay conseillers am na ay ministres am na ay directeurs généraux am na tout un appareillage bi nga xamante ni da koy permettre pour mu réajuster la politique de développement du Sénégal. Mhm. waaw voilà euh, beneen ñu laaj la beneen question d'actualité russe euh, gis nañu fan yi euh, moom sax dafa jël décision daal di bloquer li ñuy wax acquisition véhicule administratif li ko waral am na un problème de cinq milliards ainsi de suite naka nga gisee mbir moomule ak koppar yi nga xam ñu ngi koy jël di ko def ci ay woto ainsi de suite alors que peut peut am na yeneen urgence euh, yu fi nekk am na sax ñuy euh, bi mbir mi amee scandalu cinq milliards yooyu par rapport ak véhicule administratif yi ñu ne waa comment se fait-il euh, ñuy joxe ci ay oto ñoo xam ne sax parfois soxlawuñ sax oto yooyu ci budget bu yam nii wala xaalis bu yam nii bañ ciy luubal sax ay cinq milliards Euh, tey jii peut-être on a euh, treize compatriotes bloqués en Chine par rapport ak euh, feebar bii di coronavirus président Sall sañ taxaw ne aw ma moyen pour jëli leen donc c'était juste pour wane voilà. qu'est-ce qui se passe waaw boobu noonu xaalis bi ñuy jël di ko dugal si yoo xam ne la majorité des sénégalais dañ ko jàppee comme futilité est yow jàpp nga ni loolu futilité la scandale cinq milliards yi véhicule administratif yi naka nga ko gisee <laughs> scandale cinq milliards yi gis nga loolu nañ ko dugal ci réforme administrative bi mhm. euh, madame Moreau parce que man pour man mhm. <laughs> am na yéen yi nga xamante ni président jëloon na ko fi comme ci wàllum réforme notamment la réforme de l'administration mm -hmm. pour permettre au plan Sénégal émergent de donner des résultats d'impact mm -hmm. donc tey jii nii ci réforme administration bi ci yoon man lu ma jàng ci ci management de projet. Mhm. gis nga doo xëy rek nga ne da ngay def nii. Mhm. day fekk d' abord da nga saytu mooy maanaam def nga une identification très claire des besoins administration Sénégal tey. Mhm. lan la soxla effectivement pour mu am efficience ak efficacité ci lu nga xamante ni moom mooy sa mission de production de biens et de services. sa mission régalienne. loolu nañu nag a xëy jël ko comme question principale xool à travers des identifications très claires aussi bien au niveau du personnel aussi bien au niveau de l'équipement ñu jël ko ñu xam ñooñu la ak lan nañ leen mën a doter pour ñu rendre tey jii nii le service efficace. Mhm. réforme administrative yooyu noonu certes conclusion yi génn mais est-ce que am na applicabilité. lan ak lan nañ ci defoon lan nag lan nañ ci waxtaanee kan nañ ci boole waa secteur administration alors que administration privée bi est-ce que moo ngi woon ci biir donc am na yi nga xamante ni man pour man ci préalable bi la. Mm-hmm. tey bu dee ci préalable ci préalable bi. Mm-hmm. Euh, affaire yi. Mm-hmm. leerul. pour muy leer ce mode opérandi du dem. du baax. donc loolu ci jafe-jafe yooyu noonu la tollu tey. moo tax tey jii nii pratiquement ay crise financière rek nga fiy dégg. nga fiy dégg soit détournement d' argent. Mhm. wala sinon nga dégg fi li nga xamante ni mooy maanaam wàllum cinq milliards yi. Mhm. ah ñoom dugal nañ ko ci mais amul benn résultat. parce que tey dañu nar a toll to dañu nar a toll man bokk naa ci ñi nga xamante ni ci wàllum xalaat nee naa nañu bàyyi statistique yu ñuy lëre nit ñi. Mhm. dëkk bi dafa am déjà problème statistique boo fàttalee ko entre le mois d'octobre et le mois de novembre les agents de l'ANSD étaient en mouvement d'humeur mhm. parce que nee nañu ñoom sax seen wàllum publication en termes de statistique dafay am problème de parce que amul woon budget sur ça d'accord amul woon budget pour euh, vraiment pour ñu génnee seen def liggéey bi ñu mm. def seen liggéey xam nga loolu déjà c'est catastrophique dëkk bu am problème statistique donc léegi comme dëkk bi dafa am problème statistique nañu jël ci wàllum résultat d'impact nañ koy mesurer yow li nga xamante ni loolu nañu fas yéene def pour yow wala lu ñu prévoir woon def pour yow à ton nom en mon au nom du peuple sénégalais ñu dem di ko leb ci au niveau des bailleurs mhm. wala sinon ñu xëy ñu ut benn organisation bu fi nekk ñu lëkkaloog moom pour ni ko dañuy solutionner problème bii nii nañu jox résultat d'impact yooyu de façon qualitative nañu dem ci population bi ñu xool ndegam est-ce que les différents acteurs du développement li ñu nekk di liggéey jamono jii nii am na impact donc loolu mu loolu nañ nag recorriger waat de façon administrative suñu société hmm. ay waxu oto yii nii yeneen saa yi itam dañ koy wax ah hmm. effet de boule de neige hmm. mooy maanaam yi nga xamante ni ñoom dañuy xëy am na benn situation rek pour ñu réeral situation boobu ñu andi ñu beneen mhm. affaire u tey ay waxu oto ak ñoom seen réforme yi nga xamante ni moom la kilifa kër gi waxoon depuis boobu ba léegi nañu waxante dëgg ay mesures chaque fois da ne da koy wax da koy def mais après duñ ci gis dara. duñ ci gis dara naka ngay gisee tamit euh, juste une minute deux minutes si euh, problème mu cumul de fonction maanaam le fait que euh, le président bon euh, chef de parti la woon après mu dem nekk président gis ni sax lool bokk na si affaire dialogue national bi maanaam président euh, en plus chef de parti ça pose souvent problème di nga gis ni opposants yi parfois mën nañu attaquer le président président bi mën na jël article quatre-vingt bi di ko xeexee parce que c'est le président mais tamit d'un autre côté di nga gis opposant bi ne man waxumaak président bi mais je parle avec le chef euh, du parti te dans ce cas dañuy jàpp ni c'est permis parce que ci arène politique la ñu nekk ku nekk war nga mën a Euh, dal sa morom wala joxe sa xalaat wala critiquer ainsi de suite yow d'accord nga euh, parce que teg nañ ko ci tableau euh, dialogue national bi dialogue politique bi mais sa pose problème moom mooy statut cumul de fonction est-ce que yow d'accord nga nekk président ba noppi c'est vrai que loolu moo mës a am ba pare nekk chef de parti pour yow loolu dañ ko war a dindi wala dañ ko war a bàyyi sa pose problème ou ça ne pose pas problème yow si sa xalaat man de si sama xalaat politique Sénégal dafa jaxasoo tellement que. Mhm. mujj bi ñun dañu xam sax lan lan fan fan la suñu ne euh, nit yi nga xamante ñoo nekk ci langue politique bi. Mhm. bëgg di dem. soit da ngay bëgg benn affaire nga bàyyi beneen bi wala nga jàpp ci benn nga mën a progresser. Mhm. ci kaw par exemple cumul de de de fonction bi nga xamante ni entre chef de parti et chef de l'État moom na jël décision bi nga xamante ni moom mooy bi gën mais bi gën mooy ban mm-hmm. bu xasee ba nekk président de la république muy moom muy keneen muy keneen encore tu le président pour tout le monde amul xaaj ak seen man loolu laa jàpp mm-hmm. tu le président de tout le monde donc war nga mën tekki dindi ndomba tànk chef de parti na ko génnee mu jox ko keneen ci biir kuréelam ki nga xamante ni moom la gëm mu daal di dem ak moom waaw parce que ñu bëri dañ naa la Euh, bu fekkee danga tekki sa ndombal tànk en tant que chef de parti sa sa sa régime jeex après euh, donc dootoo dootoo dootoo signifier dara wala maanaam ban position ngay am si sa biir parti am na ñuy wax loolu daal après après le mandat dootoo <laughs> tekki dara ci parti bi. ainsi de suite parce que keneen jëloon na sa place. mais léegi loolu noonu ci au mm. niveau des partis yan statut nañu parce que gis nañ fi le cas de maître Abdoulaye Wade toujours ça pose problème oh. bi mu génnee même wàcc na parti bi. waaw ça pose problème. mooy kaw texte au mm. niveau des partis yi rek. Mm-hmm. parti yi bëri nañu ba nit ñi xamuñu lam statut nañuy doxee wala yan texte de règlement nañuy doxee mais man tey bu ma nagoon dem bay yëkkati sama kuréel. Mm-hmm. mooy maanaam bu ma nee man damay nekk président yàlla dogal ma nekk président Sénégal mooy maanaam damay génne sama statut damay génne ci sama statut chef de parti. chef de parti. ma ñëw nekk président Sénégal. nekkal fi ñëpp mooy maanaa bu boobaa damay am kàttan woo compétence yëpp pour dëkk bi jëm kanam mhm. donc loolu noonu c'est par rapport à ça nu may liggéey le sama waa parti d'abord di amaat confiance pour reconduire ma bu dee damay amaat deuxième magistrat benn beneen magistère mhm. donc c'est sur la base de ça bu ma paree maintenant sama mandat cumulé président de la république si yoon mhm. sama parti dañ ma nag gërëm ni ma yow président honoraire nga donc dañ may jox par rapport au sage du parti ñi nga xamante ne ñooy joxe ay orientation clé mm. léegi nag tant que amuñu niveau de mentalité yooyu noonu toujours day am euh, ay ay problème voilà yow euh, juste une minute euh, un an euh, pratiquement c'est c'est ce lundi euh, la ñuy vingt quatre vingt quatre février plutôt ci la ñuy fêter un an ci deuxième mandat bu président Macky Sall tey ban bilan ngay joxe positif ou, ou négatif. bon on a ci deux pas pas ci sept ans yi njëkk yi. mais ci cinq ans yi. Mm -hmm. euh, <laughs> un an va fêter ça dans dans deux jours. <laughs> le man, bilan de ci un an yi six mois kese laa dund Sénégal. <laughs> ah bon waaw. waaw parce que boo dundul Sénégal sax voilà. waaw ba muy ba muy ba mu bañ koy falaat. Hmm. bañ koy eh, bañ koy falaat. Hmm. bañ koy falaat. Hmm. pour deuxième mandat. bañ koy falaat pour deuxième mandat. avec la constitution. bi jàll. man li ma ci xam mooy maanaam six mois laa fi dund mais si six mois yu ma fi dund mhm. dëkk bi fu ma tourné mhm. wala télé bu ma seetaan rajo bu ma déglu mhm. ah, dañ may ne dafa tar dëkk bi dafa metti dafa tar dafa metti dafa metti ci ñëpp donc mooy maanaam tey am na peut-être est-ce que ci deuxième mandat am ba muy ñëw peut-être ci bilan premier mandat bi kese la la appesantir woon ba génnewul par exemple li nga mhm. xamante ni moom la dëkk bi yëpp soxla mhm. pour mu dooraat ko ci mu mu mu defaat ko ci ci cinq ans om yi nii mhm. mais déjà le fileeg le vingt yi man maa ngi gis ne ni beaucoup de syndicats beaucoup d'organisations de travailleurs beaucoup par rapport à nos concitoyens ñoo kaas ni dëkk bi dafa metti léegi lu tax mu metti moom kese moo am justificatif bi nga xamante ni au soir pour man du 24 février bii nii. Mhm. dafa nar a toogaat ak Sénégalais mu wax leen lu tax. par rapport ak question cherté te la vie. moom si si si février bi normalement président Sall war na génn wax leen lu tax dëkk bi gën a tar encore gën a ah. métti. waaw <laughs> voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale tout la ville en parle tey jii euh, Ndeye Comba Moreau dalal euh, Bruce euh, Cédric Coly nekk sociologue nekk tamit manager de projet de développement Bruce ñu lay laaj comme sociologue nga gis nañ ni maintenant dañu gis criminalité bi dañ koy globaliser quoi criminalité bi ak insécurité bi dafay gën a yokk Euh, yaa ngi gis affaire agression yi bari na affaire euh, cambriolage yi bari na euh, li nga xamante ni mooy violence ci biir kar yi bari na faat bi ñuy faat nit ñi bari na yomb na sax insi de suite donc ñu jékki-jékki rek société sénégalaise nekk benn société de violence boo xamante ni criminalité bi waxuma sax dafay wàññeeku mais nuñ ciy gën a waxee muy gën a yokk ban jàng nga ci am en tant que sociologue question violence su euh, par exemple ci dëkk bi man ñu ñëpp ah, ku ci nekk muy yow muy man muy keneen. man mhm. moom wax dëgg fa yàlla Dakar pour te dire vrai bu may dox je ne suis pas. Mhm. j'ai pas l'esprit tranquille. sama xel du dal dox du dal. Mhm. parce que à tout moment maa ngi xalaat soit ñu jéem a këf lu ma yor. ma xaw a résister ñu gaañ ma ci. donc mbir bi daal man pour man waa force de sécurité et de défense ah. ak ñi nga xamante ni ñoo yor mi. Mhm. waa société civile. Mhm. ak askan bi ci boppam ñoo ci nar a toog ñu waxtaanaan. Mhm. je pense amoon na fi forum de la sécurité mais c' su le cadre régional bi nga xamante ni moom mooy li laal yeneen dëkk yi voilà ci côté boobu angle boobu nañ ko gënoon teg mais suñu violence interne suñu sécurité intérieure waaw voilà violence interne bi nga xamante ni moom la population bi tey di nekk di ko di ko di ko dund di ko dund mhm. ñoom ñun dañ ci nar a toog à ñu waxtaan ci en un temps fii dañ doon wax ay waxu ni euh, naan yi moo tax mhm. nit ñi di ko ci def mhm. mais tey jii ni encore andiwaat nañu beneen phénomène mooy maanaam xale bi xale yi li nga xamante ni moom mooy lu ñuy tox wala ñu koy jam yamba bi ainsi drogue bi voilà drogue bi ñoom léegi nag yooyu noonu pour man nañu nar a toog xool yan mesure de contrôle mm-hmm. ak yan mesure yi nga xamante ni moom nañu mën a jël pour génnee ci xale yi nga xamante ni ils sont ils ont commencé à sombrer dugg nañ ci fii dogoon nañ fi tegoon nañ fi benn programme ñu ne lutte mm-hmm. contre tabac donc pratiquement yooyu ci phénomène u mm-hmm. tabagisme ce que tey jii nii suñu centre de dépistage moo ngi opérationnel li nga xamante ni ba nga xamante ni quand mun nañu jël xale yooyu ñu xool naka nañ leen ci génnee balaa muy trop tard. Mhm. parce que neexul ba neexul nga dox benn instant sa xel du dal mënatoo dox a une certaine heure de la nuit amatul benn kilifa kër bi nga xamante ni dina génn këram mu ne damay dugg ci jàkka ji yaa am na kenn ki nga xamante ni mënatul génn mu ne damay dem fii ba église ba am na problème donc ñun ñii tey jii nii wala nga doxi sa yeneen soxla. Mhm. wala nga guddee ca liggéey yaa ngi calculer nooy yeggee sa kër est-ce que di nga que dinañ la attaquer waaw wala waaw parfois ñu fekk la sax sa biir kër kër voilà ñu ñu ñu ñu tuuti euh, ñu kii parce que xam nañu nit genre famille bu ndaw nga yor mhm. voilà donc yooyu noonu yëpp ñun dañ nag a toogaat pour man ñu xool yan mesure nañ ciy jël mais mais Bruce lan moo tax faat bi yomb yow. en tant que sociologue. maanaam faat bi. bu bugguma jël ay conclusions actives mais. ce qui est sûr mais c'est euh, man du jox. en fait question boobu la ñëpp di posé wu. mais qu'est-ce qui se passe lan moo xew ci société bi parce que soo déggaan sax faat nañu nit. fii ci Sénégal bala nga koy déggaat maanaam mun nga toogaat cinq ans dix ans sax doo déggat lu mel noonu. mais maintenant chaque jour faat nañu nit chaque jour faat nañu nit muy ci violence conjugale yi muy ci agression yi muy ci cambriolage yi muy ci euh, xale yi nga xamante ni gis nga euh, léegi dañ leen di euh, non seulement viole mais dañ leen di violer ba pare faat leen maanaam faat bi lu tax mu yomb. niveau psychologie Sénégal dafa dafa dafa dafa changé. dafa changé dama lay jox benn exemple. xam nga mhm. bu njëkk ba. man dama daan dégg ñu ne sénégalais. Mhm. muñ ak kii rek. muñ ak moytu. Mhm. la daan def muñ ak moytu. waaw fitna bëgg ci dara. muñ voilà fitna bëggu ci dara. boo jëlee ci muñ boobu noonu imaginer par exemple bu njëkk ba da ngay gis nit provoqué la sax. Mhm. nga muñ ko nga bàyyi nga dem mhm. mais léegi nit dalay mbéj sax nga toog di dóoranteeg moom ci ci ci ci mbedd mooy maanaam tey amatuñu état boobu noonu nga xamante ni pour ñu am ci dépassement état de dépassement mais mais changement boobu lan moo ko waral mais ku ci ne peut-être bi la ak télé yi la qu'est-ce qui se passe wala dund bu métti bi la. na film yi d'abord nañ ko commencé wàññi. film agression yi mhm. nañ ko commencé wàññi. film agression yi teg si télé yi. film bandi yi ainsi nañ ko commencé di ko wàññi. ñu ñu woon suñu waa dëkk ay image yu positif amoon naa sam benn collègue béninoise ma je pense c'est loolu la doon liggéey nañu commencé image yu négatif. perspective yi nga xamante ni moom la ñuy véhiculer ba conscience di ko gis ba koy appréhender retenir ko nañ ko commencé wàññi. Mhm. tey nit pour mu gis benn jet de sang doonatul dara pour moom donc yooyu noonu fan la ko nare mën a gisee ci nga xamante ni société nee naa la bi nga xamante ni nee nañu. Mhm. muñ ak moytu moo fi amoon xamuñu woon loolu. Mhm. yaa ngi koy wax sànq balaa ñu ko daan dégg dinañu toogaat ay at balaa ñu koy dégg da doon nekk scandale bu mag. voilà mais maintenant mais léegi nit ñi ñoo man pour man dañaa ragalatul sax. Mm-hmm. ragalatuñu pour def li nga xamante ni mooy li ngi leen di yóbboo beneen beneen beneen beneen kii. Mm-hmm. mooy wàllum moytu bi léegi kenn sooraaleetu ko bu njëkk ba xam nga dañuy da ngay ne maa ngi muñ ak moytu. li nga xamante ni moom mooy san moom moo may sànq sànq voilà sànq boobu yow loo ci daan kaso mm. Mm. waaw moom laay wax mooy sànq boobu yow loo ci doon xalaat mooy maanaam ah yàlla naa yeewu ba dund sama journée wala ba dund sama weer ba mm-hmm. mu jeex yàlla bu nga xamante ni ma bañ a dem fee nga xamante ni mooy euh, fu caabi féetoo nit ñi gannaaw mm-hmm. comprendre mais léegi amatoo gars amatuñu mentalité boobu pour pour lan est-ce que diine yi ñoo ngi def li nga xamante ni itam mooy seen wargat mhm. parce que diine bi kese doonatu man pour ah, doonatul ci église bi ak ci ci ci ci jàkka ji. Mhm. foog ñu taxaw ci les vrais problèmes sociaux. nañu fekk nañu fekk. Mhm. gars yi nit ñi seen biir kër yi di am ay waxtaanee koñ ay waxtaanee kër ñuy waxtaan ci ci wàllum li nga xamante ni moom mooy fondamentaux spirituel. ñuy waxtaan ci wàllum mbëggeel ak coofeel bi nga xamante ni moom la ñu borom bi amal. te nga xamante ni ñun moom nañu nag a mën a sentir wala delloo ko ki nga xamante ni mooy suñu nawle yooyu noonu peut dina delloo si waat xel yi. Mm-hmm. ne itam waa kër yi def seen i liggéey. Mm-hmm. voilà euh, ñu laaj la beneen question bu am solo euh, fan yi rek lañ doon euh, feete wala màggal bés bu ñu jagleel justice sociale ci àdduna bi justice sociale nag boo gisee sax ci campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2012 daan nañ dégg souvent le président Sall di di di di laal côté boobu naan bis bu ma nekkee njiitu réew dana xeex pour justice sociale bis bu ma nekkee njiitu réew dana xeex li ñuy wax disparité sociale euh, ci loolu la wax sax daañu wàññi li nga xamante ni autorité étatique yi ñu ngi koy dundee euh, comme ça askan wi gën a mën a gis seen bopp maanaam dañu gis société sénégalaise dafa nekk société boo xam ni ñu ko tegee ñiy am dañuy gën a am rek maanaam ñi am benn niveau de vie bi ñoom seen doom yi ñooy am jàng bu baax ñooy tukki ëllëg ñooy am poste yu baax in ainsi de suite ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw après sax seen doom pour mu am une éducation de qualité ça pose problème te loolu lépp day ñëwaat ci disparité sociale euh, ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw bu ñu feebaree pour ñu faju sax ça pose problème te gis nañ ni c'est toujours le cas ñi nga xamante ni ñi ngi ci kaw euh, ba léegi ñi ngi ci kaw bu ñu feebaree sax du ñu fi fajoo dañuy jël avion dem à l'extérieur aux États-Unis en Europe ainsi de suite ñu gisoon ne euh, président Macky moom da doon mettre l'accent sur ça euh, ñu amoon ci yaakaar naka gisee li nga xamante ni mooy justice sociale est-ce que li mu waxoon day réduire les disparités sociales pour yow am na wala amul moom nag nee na teg na ay kii gis nga fi ay bourse sociale gis nga fi ay couverture maladie universelle mais c'est euh, bu fekkoon da nga jël tey sa micro dem ci mbedd mi euh, laaj les sénégalais euh, yaakaar naa dañuy wax c'est paradoxal parce que projet yooyu yëpp ñoom sentiruñ ko ba léegi disparité social boobu mi ngi fii justice social boobu tamit ça pose problème alors que dafa nekkoon loo xam ne Euh, bokk na ci kàddu yi njiitu réew mi doon dammoo euh, ci campagne électorale bi de même que sax bi mu nekkee ci nguur gi naka gisee justice sociale fii ci Sénégal ak disparité sociale yi. <laughs> yow yow waxal nga ko sa bopp <laughs> parce que bu yomboon pour man. Mm-hmm. wax dëgg fa yàlla kon. Mm-hmm. dañuy dañuy valoriser suñu compétence d'abord yu ñu fi am. Mm-hmm. c'est c'est anormal. nga fonction ministérielle. c'est pour juste servir. fonction directeur général c'est pour servir mm -hmm. et le service doit être par amour mm-hmm. ci ci coofeel mm-hmm. day fekk nga bëgg ko nga porté ko sa xol nga doogee di ko mën a teg man pour man du yoon du yoon ñu jël suñu xaalis mm-hmm. pour man ñu jël suñu xaalis mu am benn ministre bu ci feebar mu dem soit yeneen hôpitaux di ci faju à l'extérieur. mooy maanaam dafa xeeb li nga xamante ni mooy nekk fii léegi nag alors que ñun fii nii pour kenn dugg. pour mu mm. faju mm-hmm. ah ñu tegal la d'abord ñu ne la tànk feyool yi duñ la admet duñ mm. duñ la laal duñ la laal. Mm-hmm. xam nga foofu noonu mooy premier degré de complication donc moom bu ko daan wax. tey jii nii après mu ñëw mu def neneen. et puis dafay revenir à chaque fois ci ay discours am. waaw mais. Euh, j'ai le tour du Sénégal dem na si coin yi recoin yi ruqaat yi euh, gis naa pauvreté bi maanaam ni mu mel ci ci ci mm-hmm. réew mi bis bu ma toogee danaa xeex li ñuy wax les disparités sociale danaa ko wàññi bu baax a baax a baax. c'était son son combat. waaw léegi comme wàññiwu ko. Mm-hmm. moom léegi nan na joxal boppam bilan. Mm-hmm. mu joxal boppam li nga xamante ni mooy niveau de conscience est-ce que wàccoo naa wala wàccoo ma lu nga xamante ni moom laa digaloon ak askan bi nii mm-hmm. c'est toujours la première question qui répond bi nga xamante ni moom mooy fële na chômeur mm-hmm. donc ñoom tey jii nii Séné maa ngi xoolaat par mesure de sécurité démb seen niveau de statistique mm-hmm. mais maa ngi gis ñu ne quinze pour cent quinze virgule sept mais loolu ca 2017 la kon mooy maanaam amuñu nombre de chômeurs deux mille dix huit deux mille dix neuf. mais yow CMU bi. voilà ba pare nga hmm. jëlaat euh, question CMU bourse sécurité familiale dañoo tas pratiquement gox-goxaat yi nañu waxante dëgg dañoo xëy ñuy ñu teg ci ay féewaloo. Hmm. parce que déjà ban critère d'abord nañu njëkk teg. pour joxe nga mën a am bénéfice. man je vais taire le nom de cette organisation. Hmm. bi nga xamante ni moom laa demaloon mission dans ci Linguère mhm. man Brice fekk naa fa fekk may def benn programme transfert cash flow mhm. ci liste bi ma jox benn député benn député mhm. bokkoon ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñu ñu inscrit ci liste bourse sécurité député waaw ci premier li ma lay wax ni loolu noonu manque amaloon ci benn mission nga gis ci liste bi ci ci ñi ñi ñi am ci bourse sociale ab député turu député mi ngi ci waaw mais député lu muy doyee bourse euh, sociale moom laa lay wax mooy mm-hmm. maanaam critères yi mm-hmm. ba ma ñëwee mm-hmm. ba ma ñibbisee mission boobu ma rendre compte ñi nga xamante ni mooy ñu ma fa yóbbu woon ma ne leen kii defaralu ko li nga xamante ni moom mooy transfert am parce que nee nañ ma ci wàllum statut député la mais dama fekk turam ci bourse de sécurité familiale loolu maa ngi koy def ci Lingu maa ngi defoon mission boobu Linguère couverture maladie universelle bi ak euh, euh, crise bi am ci ci hôpitaux yi laal nga ko sànq sax euh, askan wi ñu si ëpp je dis la majorité waxuma sax ñu dem à l'extérieur mais pour nga faju fii nii nii au Sénégal ouais. ça pose problème mais gis nañ ni njiitu réew mi heure bu ñu soulever Euh, problème bi wala crise yi am ci hôpitaux yi rek moom dafay andi li ñuy wax couverture maladie universelle teg ko. moom laa la wax am na am na yenn programme mhm. yenn projet mhm. dëkk bi mhm. nañu toog ñu xoolaat d'abord le cadre d'identification des besoins parce que pour couverture maladie universelle da nga nagoon xam par exemple plateau médical bi d'abord lan nag lan ak lan la demander est-ce que am na ñu jumtukaay yooyu bu dee am nañ ko waaw léegi loolu noonu buñ ko bu ma leen ko joxee ci ñaata la sama askan mun na fajoo wala comme ñii mënatuñ ko mënuma def service public naa ko def open mhm. ma jox ko privé bi mu liggéey ma dem dëkk bu ma mujjee jàng nii Égypte mhm. privé bi ñoo yor seen hôpitaux yi privé bi dafa am doole mhm. et ça je vais je naa ñu taxaw ci tuuti privé moom moo mun a jàppale état pour mu yokk koom-koomam. Mhm. da ngay xëy ñu ne la plateau médical bi. Mhm. nañ ko jox privé bi. Mhm. privé bi donc. fii dafay dafa am ay objectifs yu muy atteindre. mu am ay résultats yi nga xamante ni moom la nar def boo ko defulee waaye laa dañ lay génnee marché bi ñu jox ko keneen am nañ ci jafe-jafe boobu noonu fii ci dëkk bi. parce que mënoo xëy nga ne yow en tant que état da ngay def lépp CMU boobu looloo tax mu am problème. mu am problème mënul dem. parce que tey jii nii c'est vrai nit na nga dem verser sa cotisation pour nga mun a au moins sa faju mais boo yeggee ba foofu ñu ne la par exemple lii ak lii amul. Hmm, lii lañ mën a faj mu faj lii voilà wala lii lañ mën a jël en charge jël lii en charge. voilà ça pose encore problème. ça pose un problème na def collaboration médecins yi ñoom médecins yi seen biir nañu xool naka nañu teg charte bi nga xamante ne ñoom ils vont exploiter dañuy doon ay repreneur ñu doon ay exploitant ci biir hôpitaux yi en tant que privé ñu am ay ay kii nuñ koy xatee ay cahier de charge yu leer mm-hmm. lu ci cahier de charge yooyu ñu xam yan résultat nañ ci xaare ñun population bi naka nañu mënee dem fajoo foofu noonu facilement donc loolu dina mën a permettre. maanaam daal su ma la déggee projet yu bari nguur gi da koy teg alors que. nekkul ñu togg ba mu ñor voilà maanaam pareegul ñu lancé ko. waaw ça c'est mon c'est mon c'est mon c'est mon avis voilà comprendre mhm. te euh, man fenn laa yàqamti. Mhm. ci projet programme yi. Mhm. wax dëgg fa yàlla dinañ ci am résultat léegi nii fi léegi le trois ans. fi léegi deux mille ci yoon. nan na ñu mën a euh, wala deux mille vingt trois nan la ñu mën a am résultat budget programme temps man am na ay interrogation yi nga xamante ni le le les multiples questions sur le BIP la laa mm-hmm. nekk di travail mm-hmm. parce que yooyu moo parce que budget programme da nga nga am soit résultat bi am impact te bu amee impact jaratu ngay reconduire fii ñaata programme nga fiy gis phase benn mm-hmm. phase deux phase trois ça pose problème beneen bi euh, gis nañ toujours ci wàllum développement parce que on a un problème ba léegi réew mi <laughs> même suñu ay plan Sénégal émergent ainsi de suite euh, ñu bari jàpp nañ c'est utopique imaginaire ainsi de suite en tout cas askan wi sentir ko wala ñu koy sentir euh, bariwul mais tamit gis nañ comme souvent sénégalais yi dem bitim réew dem foofu ñafe ñibbisiwaat pour investir ci réew mi gis nañ fi comme par exemple euh, le l' exemple de Thionia mu nekk sénégalais boo xam ne ràññee nañ ko aux États-Unis d' Amérique mu am fa lu mu fa liggéey ba ñu ràññee ko mais récemment moom gis nga dafa ñëw euh, daal di mel ni kuy wan euh, ndaw yi yoon bi maanaam dugg ci mbay mi moom sax day dem ci tool yi di roose di def tout euh, xaw ma ba xam yaa ngi koy suivre <laughs> vraiment maanaam da leen wan ni affaire yi fii la ñëw leen di leen wan ni yoon bi fii la naka nga gisee euh, Thione ñaa euh, dem na bitim réew ñafe na foofu am na lu mu fa am ñibbisiwaat ci réew mi mais mu ngi woo jeunes yi ci li nga xamante ni mooy mbay agriculture parce que moom taxawur naan bàyyi leen ainsi de suite moom dafay dem ci tool yi euh, di bay exactement naka gisee phénomène Thione Niang. comme Thione man itam <laughs> damay encourager jeunes yi pour ñu bay. Mhm. dafa mel dafa leen di woo ci mbay mi. parce que mbay mi ak économie surtout. koom-koom bi développement. am na yenn dëkk yi nga xamante ne. Mhm. aéroplane bi ci Afrique ah. Mhm. aéroplane buy wàcc. Mhm. tu que du vert. du ay ñax. mais li nga xamante ni moom mooy askanu dëkk yooyu lu ñu nekk di béy. pour assurer seen autosuffisance alimentaire ak seen sécurité alimentaire mooy maanaam pour ñu mun a itam génne seen production à l' comprendre ñu wàññi niveau d' importation bi. ban comme Thione maa ngi ne ndaw yi. Mhm. nañu béy yow apprécier nga li Thione def. bu baax parce que man euh, juste deux semaines laa dellu si à Dakar. Mhm. dama ba ma ñibbisee Alexandrie. Mhm. Égypte ma toog quelque temps ma xam ni fii doxul. ma woo benn entrepreneur. ma ne ko ah man de neex na ma torop ma ñëw xool li nga nekk di liggéey ci loolu noonu. ma fekki ko biir Casamance. Mhm. département de Bignona. Mhm. toog di saytu ak moom naka nañu mun ne booster l' agriculture familiale maa ngi koy nuyu au passage di parce que da damaa gis tey jii nii euh, fu ñu mbay bi naka mën a jëmal. Mhm. et c' il faut que ñu ñu dugal loolu suñu xel. ñu ngi ñuy bëgg a andiwaat ay idées yi nga xamante ni ñun tollaguñ fa madame Moreau. pour man. chaque chose est une étape étape nañu naga di dem balaa ñu fi wax waxu pétrole ak gaz est-ce que nañu njëkk na askan bi toog mu ne est-ce que man lekk naa ba suuf mhm. naan naa ba mën na li nga xamante ni dina ma permettre ma nelaw mhm. loolu moo lay permettre nga xam ne ni am na ay mbir yi nga xamante ni mun nga ko dem defi mhm. tant que lijjantiwuñu lu ñuy lekkee ba mhm. suur mhm. du ñu am kàttan ak doole mhm. pour mun a di dem béyi fële na le dëggal pour mun a dem exploiter ressources yooyu mbay bi mooy suñu axe de développement mu neex mu naqari te dañoo nag a yokk piste de production yi kon coom ñaa fa mu laal foofu la mais balaa coom ñaa di ko laal wala am na international bi nga xamante ni moom mooy euh, Ferdinand Coly xëyoon na fi mu mu ubbi benn ferme. Mm. nit ñi ñi nga xamante ne ñoo xam accès développement yi fu ñu nekk. Mm. ñoo ngi andiwaat wàllum mbay bi. Mm-hmm. mais nañ ko moderniser. nañu xool pour man tey ay ANIDA yeneen programme agricole yi nañu xool naka nañuy liggéeyee ak mm. jeunesse bi. Mm-hmm. pour au moins indi benn plus-value ci dëkk bi. voilà euh, waxtu bi jeex na ne woon nga déggoo olof mais vous vous êtes bien débrouillé ñu bàyyi la nga tàggoo ko auditeurs yi russe. waaw dinaa <laughs> tàggoo ci ci wàllum euh, euh, français. pour mm. permettre quand même. Mm. parce que bi nga lancé appel bi. waaw y a eu beaucoup de mes promotionnaires. de l'université d'Alexandrie bu baax a baax. Mm-hmm. qui qui qui me soutiennent. et mm-hmm. qui qui. me manifeste mm-hmm. toujours mmh. le, le présence mmh. par rapport à ma politique et à ma pensée. Euh, juste dire qu'aujourd'hui, le phénomène social qui, qui touche le Sénégal mmh. ne peut être résolu si et seulement si nos acteurs politiques quand même intégrer la jeunesse mmh. dans les plans. Mhm. Il ne s'agit pas de leur dire venez tout simplement parce qu'on a déjà confiné quelque chose. Tout mhm. ce qui se fait sans moi est contre moi. Mhm. Donc de l'identification jusqu'à la fin on doit impliquer la jeunesse, on doit impliquer tout le monde. Ce n'est pas seulement la jeunesse, mais on doit impliquer tout le monde, aussi bien au niveau de la co-identification, de la co-élaboration, de la co et de la co mais aussi de la co-évaluation, pour avoir les résultats d'impact. Qu'on arrête de nous faire comprendre à chaque instant qu'il n'y a que les statistiques mmh. qui sont là, mais quelle est la, euh, quelle est le, la mesure qualitative par rapport à tout ce que nous avions prévu comme bien pour cette nation. Voilà. merci beaucoup Bruce Cédric euh, Coly euh, ñu ngi koy remercier euh, bu baax a baax mu nekk sociologue nekk tamit manager de projet de développement ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci idée yi ak tamit ci disponibilité di leen remercier yéen aussi suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 di remercier Diawo Diallo ci technique bi Babacar ndiay ci réalisation bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi nag mën ngeen ko euh, suivre rattrapé wu ci suñu euh, chaîne YouTube Rewmi officiel suñu chaîne YouTube Rewmi officiel bu ngeen fa demee euh, di ngeen mën a rattrapé wu dégluwaat émission bi kon ñu ngi leen di remercier ba samedi prochain incha allah jaa ngeen jëf.